Mbada Yande doomu doomu Saafeen mbokk yi moo ñu wan ginnaaw Mbada Yande la ñu jàkkaarlool Mbada Yande doomu Saafeen Mbada Yande doomu Saafeen abit baa ngi ñoom abit baa ngi laaj ay jugeem abit bi sifle na Mbada Yande doomu Saafeen ñu fas yéene waxtu waxati comme nañ ko daan defee Mbada Yande ak doomu Saafeen Ousseyn Diop baa ji xale yaa ngoog jëlal doomu saafeen mu ngay fuddu kii mystique jàpp ko. déedéet. Bada Yande moo ngi koy kàbbar. combat spécial baa ngi neenu dox ci diggante Bada Yande ak. doomu saafeen doomu saafeen de moom mooy séeréeru saafeen. billaay waxati ko. waaye ñii seen lewaatoo bi dafa sooyaantoo waaw waaw jegeyaantoo nañu. am naa ci yaakaar ne. nii ñu débuté bés buñ ko continuer nga gis combat bu gaaw ñu fi guddeel benn yoon. Bada Yanda doomu Saafeen xale noonu ci diggi géew wi mbokk yi Habib Lecran fi woo doomu Saafeen doomu ñoo ngi demee wet saako dëkk la waaye saako yi fekkiwul kenn xale yaa ngi lewaatoo moo ngi ci diggi géew wi ñoom ñaare ngi noonu Bada Yande ak doomu Saafeen. ñoom de baa doomu Saafeen moo ñuul moo la wan ginnaaw. séeréer la kenn du ko laajte pël day xees. <laughs> doomu Saafeen moo ñu wan ginnaaw. xaaj nañ ko pël. saako yi fekkiwul kenn. ñaata yoon nañ ko xaaj. 4 doomu Saafeen ñoo ngi waatoo. oh door na ko léegi doo dal mais xale bi weex na de. ndeysaan supporter yi doomu Saafeen ñoo ngi lewaatoo ndeysaan Bada Yandé doomu Saafeen mbokk yi bi mooy combat spécial bi ndeysaan su ko defee ñu na ko door na ko léegi xale yaa ngay xeex doomu Saafeen looy def nii jël na ko jël na tànk ba jël na tànk daanu ko war na ko daan ko daan na na ko doomu saafeen daan na Bada ko nee na man la dafa jël ndamal daan fañ na ko Père Max Père Max sama at Dame Sène ñàkk caaxaan yaa ma yaa ma reporté li ma ko def waxoon naa leen gars yi na ma ko def li ma lu ko raw laay def kii man damaa mën a bëree mais père maximum xam nga laa bëgg waaw baaxul ñu jàppale ma. bëri naa ne bëri naa ne xoolal billaay walaay talaay sama booy sama booy ñooy père man waa boobu dañ maa seetaan quoi. waa Bawol dañ waa Bawol dañ maa seetaan fer